mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax a baax ci weeru koor wu sell bii nga xamee ne eh, ci la ñu ne ni ñu leen ko digg woon itam noonu lañ ci dellusiwaate ci wàllu waxtaan wi nga xamee ne waxtu wu jot ci ba ñu koor gi di jeex incha allahu rabbi daañu toog ci bërëb bi nga xamee ne moo di 2STV fas yéene jëm ci wàllu waxtaan waxtaan wi nag ala kulli du génn li nga xamee ne moo di lislaam du génn alxuraan te mooy benn ndax tam mooy téere bi nga xamee ne moo koy wéyal ñuy waxtaane nag itam euh, ci wàllu koor waaye nag lii sunu borom dëxëñ lépp ci doomu aadama loola ca la bokk et ñuy ñaan yàlla tam mu jéggal ñu ndax doomu aadama dafa matul te yàlla mi nga xame ne moom moo di alkamal jalla wa jalaaluhu xam na loolu ndax ci ni mu nu binde la ni nga xamee ni tamit noonu la taxawee ba taxawal sunu jëmm yii waaye coono ba ca sunu borom def ba nit sotti ba teg tànkam ci suuf waaye ñaare léeg-léeg mu am taxawaay boo xam ne bii day xaw a safaan ak bi nga xamee ne day xaw a safaanoo ak bi nga xamee ne moom la sunu borom amoon yéene ci moom ndax ba yàlla dajalee ruu yi wax leen ne xanaa damay seen borom. alastu bi rabbikum gaa yëpp dañoo tontu ne ko balaa waaye nag bi ñu wàccee ci kaw suuf moom léeg ñu gis ay mbir yoo xam yi day faral di am moo tax yàlla di xool nit muy évoluer ci kaw suuf ba mu yàgg mu ne ko ah, xootilal insaanu ma ak farahu waay waaye waaye mbas waay reef na doomu aadama ndax lan taxul lu dul ndax la may dugg mooy woon ma gannaaw nekk ci bànneexu bàkkanam moo tax mu ne xutilal insaanu ma ak farahu waaye rey nañu nit waay waay waay na nit faatu waay waay waay waay kii nañ ko éliminer waay ndax jëf ji nga xam ne mu ngi koy def ci kaw suuf yooyu yëpp sunu boroom ndax inna batsa rabbika nag la shadid am na fu mu yàlla waxee loolu nee na sama riposte man yàlla dafa metti lool te dafa dëgër lool kon nag teey leen yooyu yëpp borom xam-xam yi toog fi di ko wax ñu leen fii dalal fii ci 2STV ba tax itam ni nit mel ñuy seet nag nees di mën a def ba bu fekkente ni amuñu cent pour cent itam ñu wàññi ci axlaax yi nga xamee ne moom la làmboo mu di al axlaaxul xabiha yi nga xam ne mën nañ koo wàññi ñu fexe daal ba am lu luñ ca domp loolu nag moo tax tey ñu dalal fi kenn ci borom xam-xam yi nga xam ne itam ñoom dañuy faral di taataan seen xam-xam mu di euh, Oustaz Moussa Moussa Guèye mi nekk fii tey sëñ Moussa. Eh, nu fas yéene. Mouhamed Guèye. Hmm? waaw Mouhamed Guèye nga baal ma parce que Mouhamed Guèye teraanga lañ la daan faral di wax ndax ba teraanga jee tax. Hmm. waaye tey maa ko xasaf maa ko dagg. <laughs> Mouhamed Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam man ma tudd la yonent yàlla Moussa <laughs> waaye nag Mouhamed Guèye man ma ci am Moussa moo doon waxal léegi mu yóbbaale sama xel waaye nag ci loolu. Hmm. Mouhamed Guèye mii ñu dajal euh, ñu dalal tey ñu fas yéene waxtaan ak moom kéemtalaay waxtu ak lu toppandi euh, ci ayatul quran yi nga xamee ne ñaare dañ ciy suqi wax ci wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil xayl looloo tam sunu boroom wax na ko waxoon na ko ci téere bi loola nag la muy firi ak itam la taxoon mu wax ko ak itam taxawaay bi jullit yi waroon a am ak dërlu gën waroon a am ak njariñul alquran loolu lépp tey jii ci weeru koor gi daañ ci dikkaat fii di ko bëggale bokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan fii ci biir Sénégal di ñu seetaan itam ci li nga xam ne dafa génn wàllu bi ci réew mi kon nag Mouhamed al kalaamu maaka euh, tafadal bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa tilka xujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmihi narfaxu wa wahabnaa lahu isxaqa wa yaxquuba kullan hadaynaa wa nuuhan hadaynaa min qablu wa min zurriyatihi daawuda wa sulaymaan wa ayuba wa yusufa wa muusa wa haaruna wa kazaalika najzil muhsiniin wa zakariya wa yaxya wa xiisa wa ilyaas kullun min asaalihin mhm. wa ismail wal yasaa Hmm. wa yunusa wuluutan wa kullan faddalna ala alaalamin ok wa min abaihim wa dhurriyatihim wa ixwanihim hmm. wa ashtabaynahum hmm. wa hadaynahum ila siraatin mustaqim ok daamat kafaani turrama axfayta wa kunta lii bi ayni maa wafayta wa kun muidan lana min charri di xasadin ma charri fammin wa charri l ayni yallaahu wa charri sirin wa charri alxalqi insihimu maa jinihim wa dawaati summi yàllaahu sëñ Maodo ñu ngi lay ziyaare mhm. di ziyaare waa réew mépp ak waa addina mhm. ñi nga xam ne jàkkaarloo nan ak ñun ñoo ngi leen di ziyaar mhm. ñi nga xam ne yàlla dogalu ko it ñoo ngi leen di ziyaar di rafetlu jataay bi bi nga nu woowee ci diine ndax nit moom faw ñu di ko woo mhm. ndax yàllaa ko bindee mu am mémoire boo xam ne nii mhm. lum ci enregistré rek mhm. danañ ko woo ci loola moo xam lu mu mën a doon nag bi kulli faani sant gi ni sant yàlla nag mooy bi nga nu woowee ci lislaam ak ci diine loolu ñu ngi ci sant yàlla bu wér wér wér bala ñoo tàmbali waxtaan wi danoo doon ay gone doonu jullit yàlla dogal ñuy ay murit am fu ñu jaar tëbuñu tëb rek am xam-xam. Mhm. jóge Touba itam. jóge Touba ndax Serigne Saliou Mbacké. Mhm. radiyallahu taala anhu nafaana lahu bi barakaatihi moo ma yar lu ci man rek. Mhm. Eh, jëmm ju tedd jooj di Cheikh Saliou Mbacké na yàlla fay ko. moo ko def ci man. moo tax duñ tàmbali mukk dara te tudduñ ko ñaanal ko yàlla doomi jàmbur yi nga xam ni jël na leen jàngal leen lislaam ci kaw suuf yàlla. yokk ay maqaamam ak i darajaam hmm. ci barkeb Sëñ Tuubaa ñuy ziyaare it sëñ Cheikh Sidil Moxtaar Mbakke hmm. euh, taaliban lahu tuula albaqaa'i wa xismatan min kulli halaakin hmm. wa shaqaa'in wa najaat min kulli aduwin wa balaa'i xaa'ila di ziyaare di ñaan suñu borom guddal aw fanam ba lim fas yi nii liggéeyal maamam ci kaw suuf suñu borom may ko kattan ba mu defee ko ni mu ko bëggee tan àndu ko ak moom di ziyaare it mboolem xalif généraux yi nekk ci senegal di ñaanal ñëpp suñu borom may leen fan wu gudd ba liñ bëgg liggéey lislaam suñu borom defal leen ko ni ko bëggee. ok weeru koor nag. di waxtaan di waxtaan ci aaya boo xam ni. dafa làmboo ay njariñ yoo xam ni jullit yépp war nañ koo bàyyi xel ña yàlla dogal ñu ñuy liggéey ca loola. tuddee aaya bi wax njariñ li. dina tax ñoom ñu gën a farlu ci liggéey ba mhm. dana tax ñoo xam ni réew mi fàttewuñ leen noo ngi leen di bàyyi xel mhm. bokk na ci jumtuwaay yi nga xam ni mooy tax nit ki gëm ni fàttewuñ ko mooy ñu ku ñuy tudd jëfam ci lu mel ni rajo wala télévision mhm. loola ku amub tele nag mayte lislaam ab waar ba mën caa invité kenn ba muy tudd diine dañ lay ñaanal suñ borom yokku sa mbir moo loolu lañuy duggee ci borom kër gi di Serigne El Hadj Faye. El Hadj Ndiaye kon dañ koy ñaanal moom it matériel bi nga xam ne moom la yàlla teg ci loxoom mu di ko taal adduna bépp di ko seetaan mu jox ca lislaam wàllam. ba di woo ay gone yoo xam ne ni jàng nan ñuy wax ci lislaam kon kooke dan koy ñaanal. yow ñu ñaanal la yow mi ubbeeku bay dalal di gës ñoo ne di leen dalal macha allah wa ahiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribatal xayli lu mel ni mel ni dafa am ko taxaw ne lu tax mu ne turhiboona bi aduwallaahi wa aduwakum préparé leen lu ngeen mën ay jumtuwaay yoo xam ni dinañ leen may ngeen mën a jàkkaarloog noonu yàlla yi ak seen noonu bopp yi mu mel ni kon préparé ay arme mooy lan ndax arme yu ñuy xeexeele déedéet préparé googu li ñu jublu mooy fexe ba nit ki tuddoo jullit bu juddoo jaar ci ay waajuram waajur yooyu nañ fexe ba góor góorgóorlu ba teg ko ci barab boo xam ni lu lislaam bëgg des na ko ko defal ci moom mm-hmm. ba bu ëllëgee bu daagoo ci jamono mm-hmm. bu ko ay waajuram gisee bég mm-hmm. mbégte bi ne ci doomu aadama ba bu la sa doom wooyee na la jëlal big maa ngi la yónnee nangam mbégte moom di nekk ci ci ci waajur bi nga xam ne day bég ci doomam ji teraanga ji mu ko defal mm-hmm. mbégte mu raw moo war a nekk ci waajur wi bu demee ba jàngal doomam lislaam ak diine ndax loolu rek la ñuy dese kon wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin jamono ji ñu toll mënees na cee waxtaan lu yaatu ngir nit ñi gën a farluwaat mm-hmm. delluwaat ci yàlla sunu borom mi nga xam ni moo nu bind boo xoolee yàlla dañuy laaj bu bëri ci alxuraan te boobu ba tey tontoogun ko mm-hmm. afa xasibtumu anama xalaxnaakum xabasa tontooguñ ko de déedéet xanaa yéen da ngeen defe ni dama leen wàccee ci pàkk bi rek ngir ngeen di foo ñëpp ne tekk mu xanaa da ngeen defe ni wala da ngeen defe ni du ngeen ñëwaat ci man di ngeen ñëwaat de danaa leen laaj loolu kon mooy tegtale ni jëfi doomu aadama bi rek mooy sonal doomu aadama bi ëllëg buy tedd it jëfam moo koy teral ëllëg doomu aadama boobu nag tëbu tëb mën li muy def am na fu mu yaroo te fa mu yaroo ay waajuram ñoo ko fa yóbbu mhm. kon léegi jot na ci jullit bi na yàlla moo ko bind te moom la gëm war naa xoolaat bu baax na muy préparé loo doomam ak fa ko yóbbu ngir ñu préparé ko ko mhm. boo seetloo suñu borom laajaat na beneen laaj boo xam ne jullit bu ne boo léegi yaa koy tontu sa bopp mhm. yaa ayyuha allazina amanu lima taquluuna maa laa tafxaluun yéen jullit yi neen da ngeen maa gëm lu tax yéen li ngeen may wax du ngeen ko def. sëñ Maodo lu yéemee ngi noonu. li ma taquluuna maa laa tafaloon mhm. li ma taquluuna maa laa tafaloon yéen li tax yéen maanaam li nga li nga xam ne maam moom nga moom ngeen may moom ngeen may wax du ngeen ko def. nekkul ci yéen. nekkul ci yéen nga xam ne maanaam li tax nekkul ci ñun mooy dañ dul jox benn jéego boo xam ne nii. dana firmee ni ñun suñu borom engagement bi jël bay xunóot taxaw di wax ak moom di xunóot la ñuy wax ci biir xunóot ba lépp day mel ni bu fajar ga jàllee rek dañ koy changé dañuy ne ci leneen mm-hmm. te nun noo taxaw ci fajar gi wax ko wax ko ci xunóot bi lu leer mm-hmm. waaye day mel ni bi huit jotee doomu aadama yëpp changé nañ xunóot bi def ko neneen mm-hmm. mu mel ni kon préparer ay jumtuwaay day mel ni mooy jàngal nit ñi rek diine jàngal nit ñi diine nag diine daa am nun koy jàngee dafa ami barab mm-hmm. mooy daara dañ fay jàngee diine kon barab yooyu nga xam ne ci la jànge jàngee diine ku am sa doom war ngaa fexe ba waxun sax bu kenn jàngale neen ndax loolu day ndur ak tooñ waaye nit lu muy jàng war naa fexe ba soo ko bettee ca la ne boo ko ne sa diine nangam la la may ci lii ngay jëf rek da koy wax nit bu jubee taragal yàlla mooy waral barab bu mu nekk di fa liggéey surveillance sax mën na faa ñàkk. Mhm. ndax su boobaa mémoire bi nga xam ne maanaam moom la nit ki amee suñ cosalee alxuraan ba mu fees. lu mu war a jëf rek alxuraan am na lu mu ca wax su boobaa dootul sukkandiku ci lenn dul la ko aaya bi wax ci la muy jëf. Mhm. automatiquement soo mokkalee alxuraan loo nar a def rek am na benn aaya bu ñëw ci yow ne la. nangam ak nangam lii ngay bëgg a def kat nangam. Mm-hmm. comme ni suñu borom doon préparé sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga moo ko préparé boppam yar ko. Mm-hmm. ba yonent bi ne adabani rabbi fa ahsana ta'dibi mm-hmm. suñu borom yar na ma ci gën gaa rafetub melo ci gën gaa rafetub yar ba noppi daf ko daf koo yar ba noppi takkal ko raaya. tagg ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin jikko ju tedd ji ne ci yow.